Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ak ci biir Thiès Info euh, benn fan deet gannaaw euh, tànn bi ñu tànn kii di Bassirou Diomaye fay mu nekk plan B exécutif bii di Pastef ngir mu war leen a teewal ci élection présidentielle yi ana ban gis-gis la ci Thiès waayam boobu ba léegi nag ñoo ngi dégg ay wax ndax Bassirou Diomaye Faye mën na nekk candidat ci prison bi nga xamante ne moo ngi fa nekk waaye itam lan moo nar nekk ëllëgam ndax dinañ ko bàyyi mu jàll yooyu yëpp léegi-léegi lay nekk laaj ko waay ñoom itam ban gis-gis lañ ci am waaw tout d'abord maa ngi lay remercier ci le fait que aussi nga laaj ma sama xalaat ci li nga xamante ni quand même mooy ex parti du PASTEF comme ni nga ko waxee ma waxee ko sénégalais yu bëree bëri noonu lañ ko gisee noonu lañ ko jàppee aussi. parce que bu fekkee danga nga ni da ngay politique yàlla def nga bokk ci benn coalition wala nga bokk ci benn parti politique nga. teg ay jalons yoo xamante ni dëppoowuñ ak li nga xamante ni moom la ñu xamee parti politique dëppoowuñ ak li nga xamante ni loolu la ñuy xam escalier bu war a dem pour jot nguur ba yàlla def parti boobu tey jii ñu dissoudre ko donc gàcce la sax ngay réclamer wu ni falaa bokkoon suite ak ay action yoo xamante ni def nga ko yu jëppawul ak yoon yu xamante ni day nërmeel démocratie day nërmeel république ba tax tey jii ñu dissoudre parti boobu gis naa ni euh, lii ñuy def nii saupoudrage la lii ñu def nii ay fola pour wane ni dañoo am un ndax euh, li nga xamante ni kay moom moo dissoudre parti bi tas ko kooku loolu day dem ba ci bépp nit boo xam ne ci parti boobu nga bokk mun a bokk ci parti mun a bokk ci coalition waxuma laa tey ngay nekk ci nekk di nga naan candidat ngay nekk. loolu nag vraiment day wane li lii ay fola rek comme ay xale ay xale yuy fo Pastef dañoo nekk parti boo xamante ne ay xale yu dajaloo di fo donc seen coalition bi ñu wax ak bon ak seen parrainage bi ñu wax mbirum fola te te ñun ay mag lañu ñun nag euh, réew mi moo ñu ñor ñun nag defar réew moom moo ñor donc duñ. candidaturam juridiquement valable képp ku bokk ci Pastef mënoo nekk candidat mënoo bokk ci coalition boo xamante dañoo war a tànn réew wala ñu ñu leen di tànn. mënul bokk ci candidature indépendant mënul nekk parce que Pastef la bokkoon. article 57 code électoral bi ci boppam moom mooy interdire képp koo xamante ne Pastef nga bokk. ngay nekk candidat ci coalition wala ngay nekk candidat boo xamante ni candidat indépendant nga. li leen a xamal daal dañoo nekk di te ñun dañu nekk pour liggéey réew mi donc bu ñuy fo dañuy foo seen morom wala ñu foo ak nit ñi nga xamante ni quand même ñoom la ñu bokkal ay jëmukaay ñoom la ñu bokkal ay yoon. lii ñu ji nga xamante ni moom mooy élection présidentielle yi war a am en 2024 Bassirou Diomaye Faye mënu cee bokk Birame Souleye mënu cee bokk képp ku bokk Pastef mënoo bokk ci élection yooyu. ci ay fo la ñuy nekk dañ leen a bàyyi ñoom ñu fo ñun est-ce que kon maanaam ñoom ñoom ñoom xam nañ ne normalement waruñu am parrainage waruñu leen a jox ay fiches buñ ci wutiyee feneen seen ay fiches de parrainage da commencé def seen parrainage bu ñu paree la leen cay fekk ñoom xam nañ ko ci victimisation la ñu dëkk. mais mais bu ñu ne woon xam seen numéro li ma la wax xam nga tey ñu jox la fiche ak nga war a mën a parrainer ak nga jël parrainage yi remettre ko loolu ku nekk sañ nga ko mais bu ñu demee bay décider ba nga xamante ni dem nañ ba war a dem di décider ji yaa ngi dégg foofa Pastef amul droit am candidat Bassirou Diomaye Faye warul mën a nekk candidat dans ce cas xamoon nañ la leen di xaar bu boobaa nag bu ñu taxaw daal ni dañ ñoo xeex wala nangam parce que xam nañ bu baax a baax seen réponse voilà tànn Bassirou Diomaye Faye ñii ndax Bassirou Diomaye Faye parce que tànn boobu n'existe pas Pastef parti la boo xamante ne xool dañ koo dissoudre parce que Pastef n'existe plus donc képp ku bokk Pastef bu ñu la tànnee dañ lay nax ça n'existe pas amul. même les avocats xam nañ ne Bassirou mënul nekk candidat parce que fan la bokkoon du ci Pastef ci Ousmane Sonko ñu dugal Ousmane Sonko ci kaso bi tas parti boobu Bassirou rocce nu ñu ko mën a def candidat Bassirou sax pour commencer il est en prison donc Bassirou mënul nekk candidat. waaye non non non ku nekk prison mënul bokk élection Sénégal fii on est en Afrique nekkuñu France nekkuñu Afrique du Sud ba ñuy génn Nelson Mandela kaso di ko def candidat circonstance la woon parce que tubaab bi fi mu nekk dañoo bëgg a dem apartheid jeex na moo tax ñu defee ko noonu mais foofu du Sénégal Bassirou malfaiteur la mais Bassirou li ñu tëjee Ousmane Sonko lañ ko tëjee da ngeen a fàtte xanaa li ñu tëjee Sonko lañ ko tëjee diffamation wax ju ñaaw sosal magistrat yi bon yooyu lañ ko tëjee Bassirou quand même hmm? ah. Mm-hmm. waaw non xam nga lu waral loolu parce que avocat yi avocat yi layal Ousmane Sonko layal waa parti Pastef ñoo waxul population bi dëgg man premier jour ba ma déggee avocat Ousmane Sonko bi gën taxaw à la télé ne ba yomal xiyam Ousmane Sonko mënatul nekk candidat. laa gëm li ma wax la quand même kooku doo ko waxee kasaw kasaw maître Ciré Clédor Ly bu taxawee ci rajo yi di expliquer c'est pour exciter la population rek pour jeunes yi jóg peut-être te xamuñu ne doole mënut a génne Ousmane Sonko kaso Bassirou Diomaye Faye doole mënu koo génnee kaso bu ñu taaloon 3000 oto Sénégal taal pono taxul Sonko génn kaso mënul nekk c'est impossible mënul nekk. kon ab erreur la kon ñu tànnoon ñeneen ñi fi nekk ñu tànn waaye non ñu tànnoon keneen ku bokk ku musul bokk Pastef képp ku musa bokk Pastef nekk fa sax balekat moo nekk waaw choix boobu man de man doy na ma man man en personne parce que man aussi sama bopp laa mën a waxal yenn Sénégalais aussi ku nekk xam naa dina wax xalaatam mais man doy na ma comme gars yi fexe nañu aussi ba sonk bokkul xam nga am na ku mu jiital ñun ñoo ngi ci ginnaaw kooku régime bi fi ne on a besoin de changement régime bi fi ne lañu bëgg mu jóg man bokk laa man man waaw vraiment doy na quoi. mais tànn koo xam ne itam ay fan donc def si parrainage bi quoi hmm. euh, waaw d'accord mais en tout cas comme élection yi li ci des bareetul aussi des na rek daal lépp lu ci mën a nekk rek daal en tout cas man moom changement rek képp ku ñu mën a teg rek rek man man changement rek man laa bëgg a def quoi man. waaw. Hmm? mere waaw man loolu laa wax sax ku mu man doy na ma ndax tey moom bu génnoon man moom laay wootal bu moom laay wootal mais comme as yi bu amee ku ma xamante ni jiral na ko gaa yëpp ci lañuy bokk. waaw y' a aussi y' a aussi mais aussi bu lool li boo gisee jeunes yu bari ñii génn Sénégal ñiy dugg ci ndox yi gaal yi dem ñii dee nañ ci ndox mi ñu génn nañ ko booy dañoo dem ba mënatuñ fi toog te ragal naa si élection yi ren ren ren jeunes yi waroon voté majorité bi yëpp dem nañ ñii dee nañ ci géej gi ñii dem nañ Espagne vraiment bu ma ba tey man mosuma gis élection yu mel nii dans trois mois yaa ngi jëm élection présidentielle dëkk bu mel nii. kenn ñemul jóg posé candidature kenn ñemul wax kenn ñemul wax ku wax gars yi sukk see laaf mais loolu c'est grave hmm? c'est grave vraiment jaaxal na ma trop bu ma demee ba gisuma lu ma xam man je préfère ma def bulletin nul waaw bulletin nul mooy man sama régime bi mu nekk man vraiment man doy na quoi bëgguma vraiment doyuma quoi franchement ndax ah peut-être li tax ñu tànn ko gars yi xam ne li tax ñu tànn ko waaw ah, gars yi xam ne li tax ñu tànn ko ah. mais man vraiment man gisuguma programme dégluguma programme aussi. waaw mais bu dee li nekk Sonko mi ngi ci moom man doy na moom. Ousmane dafa waroon tey rek. bu tey rek. réew mi ni ko Macky Sall jotee lu ko ëpp la ko jëlee. bu nu woote woon avant midi Ousmane jël réew mi. mais lan moo ko ñàkk. mais Ousmane dafa kii man xam naa foofu xam naa ci te kër gi xam naa fépp. mais léegi moom tànn na Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye doom dara. doom dara. Bassirou Diomaye kenn xamu ko. mais Ousmane Sonko lay mu ngi ci kaso bi. nu mu ñëwee xanaa kon léegi règlement yi dafa changé. kon pour yow lan moo gënoon mu tànn koo xam ne nekk prison ndax Bassirou Diomaye Faye moom mën prison. du ma xale tiit li ma lay wax samay doom sax ni waxtaan rek quoi mais dina la xamal benn affaire Ousmane bu te bu lu woote woon nag Macky Sall balaa mi di mu jël réew mi mais Ousmane fii xam naa bu laa jël zone xam naa sàkkiri kër xam naa fépp mais maanaam moom ci jëmmi boppam Ousmane daal wax dëgg yàlla lii ma lay wax it wax ko ñëpp Ousmane dafa bàyyi loxoom. Ousmane Ousmane dafa ñëw pour xeex fi ma toog fi la ma Senghor daan fekk ma doon pionnier am fi jógee ma dem armée fi la ma Senghor fekk te dama gone dama laa bëgg a xamal ni daal Ousmane Sonko moom ni mu doxalee baaxul. ni mu doxalee baaxul mais nit ki di nga koy topp Senghor da daan ñëw fii fee la daan topp yàlla Senghor da daan ñëw mais fee la daan topp fee ñu doon ay jeunes pionniers di ko teeru fii fii mooy Thiès. mais ah loolu nag loolu lépp yàlla nga xam. ah man de bu ma doon joxe sama candidature dama ko jox Ousmane ndax am doo ko jël ci xeex Abdoulaye Wade dañ wax naan je ne peux pas aller au palais en marchant sur mais Ousmane ni mu jëlee affaire bi non Abdou Diouf fii daan wàcc Senghor damaa doon xale bu ndaw set ans di ko teeru fii bu ñëwit Senghor bu daan ñëwit ñun boobu temps ay xale lañu te ay pionnier parti ban xaw ma ca daal seen bokk mu ne. waaye daal ñoom daal ah, rek. ut sa sens nag waaye Ousmane daal nii ma ko gisee. man APR la pire. ndax ba PS jógee ba nëgë nii. maa ngi ci APR fils mais Ousmane Sonko de sa waay mais le repli nag un acte de combat mais di ngay xeex ba mu jàgg amatooy amatooy xeex <laughs> waay nga dellu mais Ousmane daal dafa yeluwul